Balla Gaye loolu loo ci xam. waaw mais ñun victoire Modou bi man dama ci bég Modou ñoo bokk sëñ Babacar muy jàmbaar mu duggee ci làmb ji ba léegi mu ngi góorgóorlu di wane boppam mu deseewuloon Parcelles Assainies roi des arènes jox na leen ko. ñun waa Guédiawaye ñu Balla Gaye à cette heure muy dëkk Modou na ko may mu jël yoonam Balla jël yoonam ba ci kanam. Balla Gaye amateur yi ko bëgg. mais du am léegi non. ndax Modou Lo estafam encadrement am moom ci boppam li mu daj ci làmb dafa metti roi bi dafa ku ko yéene man jaw bëgguma mama bi 2020 bëgguma Modou Lo ak Balla Gaye ñu bëri. da jàpp ne Modou Lo bu jëlee Balla Gaye ñàkk roi bi. dégguma. da ngaa ne Modou bu jëlee Balla Gaye ñàkk roi bi. ma laaj wax jooju Modou daal nañ ko may mu féete roi wam ndax en dafa sonn ci làmb. yow sax yërëm nga Modou Lo barke El Hadj Malick Balla Gaye am na roi des arènes te roi des amul prime lu amul prime jarul xëccoo Balla am na ko Modou am na ko Modou nañ ko ñaanal mu jaar weneen yoon Balla jaar weneen yoon ba kanam man de loolu laa Lo kan nga xalaat nañ noppalu Modou Lo dafa daj lu ne am ay coono dama bëgg mu noppalu sax. deux mille vingt bi bëgguma woon sax mu bëri ci. barke Yonent bi. yow yaa merci macha allah.